nga wax ñi ñi ne leen aw ma oto. bàyyi sa li ngay def Mamran eh, ah. dafa am xale boo xam ni mu ngi tudd sama jant. waaw. Khadija day togg chaque ajuma. Mhm. ay cere yu neex ay cere siim ay cere baasi ay cere daf ñoo yàkkal tey reer. Mhm. mais dama ko ni est-ce que Mamran dina lekk genre cere bi parce que cere bi am na ay tàndarma am na meew. am na euh, beurre am na yooyu yëpp may laajte ndax Mamran lii mooy dëggi-dëggi euh, wala changé nañ ko waa ca aba aba ah. cere ku ne xam ne euh, cere bi mu ñëwee ci réew mi ak ni ko soppee ci réew mi ku ne xam ne ne wuute na aba tamxarit bu musaana jot Xadija yaa ngi dégg waaw ah tamxarit bu musaana jot bark barke Seydina Limaamu mag ñi xam nga booba mag ñi dan la daan defaral cere ci sa kaas en attendant balaa guddi. ngay nga xam ne yow tey jii la tamxarit. ah waaw déglu ma mënoo maa laaj loolu ba pare te doo ma déglu. <laughs> buñ ko defal ci kaan. ah may la suukar nga dem tële do en attendant xam nga ne tey la tamxarit yow. <laughs> yow balaa dara xew xam nga ne tey la tamxarit. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la abaa booba yomb am na. yomba a nga woon ci réew mi abaa doxoo ba gisati yomba. Mm. booba yomba mag ñi defuñu ko par hasard. parce que cere ji dañ daan wax ne ku suuru ren dootoo suur. dëgg la booba da ngay jël ci cere ji ba yàlla yónnee la jàmm bu tëddee da ngay nalaw xorong foofu la ci tam xarit la jóge xorong. xorong <laughs> waaw gis naa nit kuy xorong. <laughs> waaw xorong parce que cere da lay war bu la waree maanaam yow loo loo def na nga naan defoo dara te yaa ngi rëy ñun ni foofu la xorong jógee tam yaa ngi dégg booba yomb am na ci réew mi. abaa booba cere ji li am fii cere ji ak cere yi démb ja bokkul. cere yi xale yi lu leen ci def. lu ne ah, cere yi ñeex moo xam ne boo ci taxawalee xale mu taxaw. kenn xamu loolu ñeex yi nu mu doon. moo tax après tam xarit la gaañu rek nga dégg non non léegi de demal demal ci almeri après tam xarit la gaañu. parce que ñeex yoo xamante ne kenn du xam ñaa ñeexu yi naa ah mag ñi togg nañ cere yi abaa ba dem. ah barki Seydina Limam mag ñi togg nañ cere yi ba boobu da nga daan ah boobu tamxarit boo jëlee ñeex mi ah, def ci li ngay def boo demee ba ñeex mi ni war a jeex mag ñi dañ daan def ah, am ñu si daan def meew mi fal ko rek bàyyi ko loolu mooy ñu def noonu ba suba <laughs> boo paree boo xëyee suba ñu tàngalaatal la nga dem ci waaye tere léegi gaaw naa forox ñi ñu dañ koy lekk ba pare amee AVC. di salade de fruits dañ koy woowee. tey lu ci def suukar ay raisin ay raisin maa gis ñeex moo xamee boo ko taalee mu tàkk def nañ ci lépp <laughs> nee naa lii <laughs> moo tax eh, eh, dafa am eh, Ndeye Diarra Ndeye Diarra fii tool bi maam rek ànd nga ak moom. déedéet. ah ànd ak moom ci li mu wax. déedéet. aha kay aha kay boo àndoon ak man xaw ma lay def. lu tax. cere léegi. waaw cere rek la. déedéet ah ba jamono ji daa soppeeku buy changé da ngay ànd ak moom déedéet booy changé da ngay changé sa biir da ngay faatu de. Ah. booy changé da ngay changé sa biir. moom yow moom yow fi ñu toll nii loo gis ci fi ñu toll nii. cere yi léegi normal waaye nan bàyyi tàndarma ji doy na waar lool tàndarma ji ak beurre ah beurre but nañ bàyyi diw ñor jet nañ bàyyi man neex mi mën naa saf lool ànd ak lu ne nag kàlla waaye daal tànnar ma jéeg bër bi ak diw ñor gi nañ ko. abaa mu yow fi ñu toll nii boo toggoon sa cere dimbali eh, ma de mu yow fi ñu toll nii boo toggoon yow sa cere ba mbax ah. ngay woote reer. ñan ak ñan ngay woo reer fi ñu nii boo toggee cere. su ma ko toggoon eh, tubaarkàlla ministre Mame Mbaye Niang. <laughs> nañ ñëw ci ndey yow saa yi ma bëgg a ci ministre ndey jaar bi su ciy wax nga di ma nga di ma def nii. ndey jaar bàyyi ma ma ñàcc foofu ndey jaar sax ba tey mi ngi taasu. bàyyi ma abaa bëgguma benn problème. mani dama laa laaj. sama sama sama boo toggee sa cere ba teg ko kañ nga ciy woo. ministre Mame Mbaye Niang ak jabaram. ah <laughs> kon kon jeex na. ah déedéet invité yi ah invité yi. <laughs> ay millions la ma jox pour cere. ndeysaan ndeysaan moom nga ci kenn du ci man. Mm-hmm. ministre Mame Mbaye après émission bi. après la la ma def kooku daa riis. politique taxul mu riis de. dëgg la Abba damay toog ci ministre Mame Mbaye Niang may ci deux minutes. ay ci kaay surtout El Hadj Kounta bi surtout ma aji màggat gay ma ci lambu diis ba. Mm-hmm. ki baax gën riis. ki nga xam ne tubaarkàlla siis ba mu toog ne laa toogu eh ki nga xam ne doxul waxul tëkkiwul yàgg kenn jëliwu ko eh. jàng ba jàng jotee toog ba toog jotee tubaarkàlla liggéey ba liggéey jotee eh, waaw waaw muumi ma daan liggéey ba liggéey jotee ak lan après toog ba toog jotee abaa mbaa du ma daanu laala musóor bi <laughs> Ndeye Diarra loo wax nga ne.